Oh my God. It's all about Je sama gars yi def live direct parce que moment bi dafa am ñu dem sama famille taal ko instant yi bi mi ngi famille, gars yi donc euh, je mets euh, l'opinion nationale et internationale à ce que ñu des bandits famille sotti fa essence taal ko donc dañ leen di jël en direct y a la police là-bas y a aussi les sapeurs pompiers ñi ngi sañu kër en fa kër famille Kaolack donc dañuy jël la famille direct ñu wax leen gars yi attaqué nañ sama kër famille donc euh, laa dugg nañ ci biir kër gi waa Jules lan moo xew Kaolack lan moo xew kër ga allo oui lan moo xew ci kër ga foofu noonu ziar naka taw feexi ba lépp jàmm ñu dañoo tëdd di nelaw benn ay kat-kat yu ñëw fii wërale suñ kër gi yëpp entouré ko ak euh, ay pono taal kër gi ba kenn mun ta génn kenn mënut a dugg xale yaa ngi nii avisé naa procureur woo naa commissaire bi ñëwaguñ woote naa gendarmerie tel guñ fi seen tànk sàpp rek moo fi tegagum tànkam pour fay ko malheureusement ñu ngi si biir nii xale yaa ngi si biir mënuñ génn xalé yaangi tejju ci biir safara ci mi ngi tak ci ci ci kër gi gën saxar ci waaw dañu dañu wërale kër gi yépp yépp yépp yépp yépp ak ay pono taal ko palam baangi ne karo yaangi wacc koñ baangi fess del ak ay nit d'accord donc wa sapeur ñew nañ police ñom ñewuguñ sapeur ñewuguñ sapeur mo ñew police ñewugul gendarmerie ñewugul gendarmerie wona len police ñu ba tay tagu jënté gu fi tankam gu fi tankam xalé yaangi ci biir ñi ngi ci en danger donc police ñoom nangu ñoo ñëw quoi bu nga doon woowee ba léegi ñëwuñu. woowaat nga leen est-ce que woowaat nga leen. kenn tegagul tànk woowaatuguma leen ndax maay wax ak yow nii sàpp daal moo fi ñëw ñu ngi branché ndox mi di jéem a fay. koñ bi yëpp ngi génn léegi lañ fi ñëw gaare seen kat kat sotti kër gi yëpp wërale ko pono. taal ko xale yi mu ñëw génn ay nitam fii. même réper répertorié wu leen kat euh, kat bi matricule bi.

Euh, aussi reviens. Ok, ok, d'accord. Donc euh, voilà, donc pour vous faire savoir que le gouvernement sénégalais ont attaqué chez moi euh, auto 44 AD de photo famille ñi fay di génn tey dañ fa dem fa ay pneu tal kër gi xale ngi ci criminel famille donc euh, voilà pour pour pour alerter l'opinion nationale et internationale de leen xamal ni euh, le Sénégal encore une fois un pays super dangereux un pays de criminels tey sama kër famille lañ attaqué là où vit mon père là où vit ma mère euh, attaqué nañ ko sotti nañ ci essence tal nañ kër gi donc voilà khale yaa ngi ci biir ñi ngi yuuxu embuscade et tout mais bon voilà dinañ ma yónnee vidéo yi dinañ ma yónnee photo yëpp dama bëggoon rek ngeen ngeen yëg te xamni ñun dara mënuñu arrêté ci combat bi dinañ xam ni tey la walla di gëna a tay lay gëna a saf tay lañ koy gëna dogali tay euh comme la la la yàlla les sapeurs pompiers mais jusque là comme niñ ko waxé police ñëwagul woo nañ leen ba son nangu ñoo ñëw on a appelé la gendarmerie aussi la famille a appelé la gendarmerie la gendarmerie nangu ñu ñëw mais encore une fois euh, comme niñ leen ko waxé rek on va essayer de prendre encore nekk ci ci kër ga on va essayer de prendre une nekk ci je vais essayer de prendre même mon père euh, le vieux Djem euh, ko qu'est-ce qui se passe chez moi ce qui se passe mais bon on s'en fout c'est le combat hein. c'est les risques du métier c'est le combat nous on s'en fout qu'ils tuent nos pères qu'ils tuent nos mères mais nous on est là on est focus dans ce combat là duñ ko baye, du lu ñuy bàyyi kenn mënuñu reculer loolu tey lay wàllu gën a aay suba ñu ñëw rokkos ba mu nokkos ba mu gën faut leen yaakaar fa ci bi dara arrêté vous êtes des assassins vous êtes des tueurs et ça c'est bien parce que quoi qu'on puisse dire lii jotoon naa annoncé le gouvernement canadien le gouvernement canadien voulait des preuves donc ben une preuve le buy parce que la dernière fois j'avais donné le nom de mes de mes parents de toute la famille donc tey dem nañ sama cœur, attaque attaque ko dafa incendie euh, meurtrière donc loolu yëpp dinañ ko jël ay armement la yu may dajale ko euh, ñu envoyé ko le gouvernement l'ambassade du du Canada au Sénégal wan les ni ñi ngi attaqué sama kër ñi la famille ñi ngi jéem euh, ma famille donc dinañ ko jëlaat aussi joxaat ko le gouvernement canadien wan les ni l'activiste qui est là le combattant qui est là ñun pour pour nous ils pensent que rey sama papa wala rey sama yaay wala rey samay frère wala rey samay sœur moi moo may intimider loolu du ma intimider daf may gën a yokk jom yokk courage ma teg ko ci parce que vraiment Euh, nañ nañ souder les coudes et puis continuer le combat jàpp ni dara dara dara mënuma intimider dara mënuma arrêter donc pour vous faire savoir encore une fois tous les journalistes que moom euh, des bandits de grand chemin ont été envoyés par le gouvernement de Macky Sall. Ils ont attaqué chez moi la, maison familiale de sëpp et ay essence Tal kër jamono pompier di fay donc la maison familiale euh, Tal euh, Ningo. donc je vais essayer d'appeler mon père je vais essayer d'appeler mon père directement ce qui se passe chez moi donc euh, voilà intimidation le mais intimidation mais on s'en fout hein <laughs> Personne ne peut nous intimider. On ne recule pas, on est là, on ne recule pas. on ne reculera pas, on est là. 2024, C'est sûr et certain, je suis très déterminé et rien ne peut m'arrêter, rien ne peut me stopper. Donc pour faire savoir à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que des bandits de grand chemin envoyés par des, par des voyous euh, de la République ont attaqué euh, ma famille, ont attaqué les membres de ma famille, ont attaqué même chez moi, là où je vis, ils ont mis le feu et la, la maison est en train de prendre du feu. et tous les enfants sont, sont, sont dedans, sont en ce moment-là, il y a, y a les sapeurs-pompiers qui sont là. Ils ont essayé de contacter euh, la sécurité, la, police et la gendarmerie. Jusque là où je vous parle, personne n'est venu. Il n'y a que les sapeurs-pompiers qui sont en train de d'arrêter le feu. Euh, un feu incendie, euh, de l'incendie criminel, euh, des, des, des, voyous encagoulés en, en 4 en, euh, en, voiture administration, ont attaqué les membres de ma famille, ont mis du feu chez moi et que voilà, là les sapeurs-pompiers sont en train de, de vouloir vraiment arrêter le feu. Donc voilà, j'alerte l'opinion nationale et internationale que les membres de ma famille sont en train, des, des bandits sont en train d'attaquer les membres de ma famille et de brûler, euh, de mettre du feu chez moi. Donc là, j'étais en train de vouloir contacter mon, mon père, mais en ce moment-là, euh, je pense qu'il est euh, affaire de parce qu'ils ont, ils ont vu du feu, donc j'ai essayé de, de contacter mon père, mais Mounou nom jot Je ne ak faire yi te sama frère euh, frère et tout ça ça me yi ça sama sët euh, pour l'instant. Donc, encore une fois, c'est le risque du métier, c'est le combat. Euh, c'est des pyromanes, c'est des, voyous. Euh, voilà, c'est. De toute façon, on est là, on est, on est, on est courageux. T'as une abnégation pour continuer cette lutte, pour que nous nous Rien et personne ne peut nous arrêter. Ils ont essayé de le faire. Nous, on n'est pas du genre du, tout. Euh, à tout moment que euh, ma famille est en danger, depuis pas mal de temps, depuis deux semaines, ils sont en train, ils ont, ils ont cherché le numéro euh, personnel de ma mère ils l'envoient des messages, ils l'insultent, ils, envoie envoient toujours des messages à ma mère, ils, appellent ma mère, ils, les menacent, ils menacent ma mère, ils envoient des messages à ma mère de, de, qu'ils vont passer pour le, pour le tuer et tout ça. Je, suis au courant de tout, mais bon, j'ai toujours dit à ma mère, calmez-vous, c'est pas grave, on, est là, calmez-vous, calmez-vous. Et, et bon, voilà, aujourd'hui, ils ont, ils ont euh, vraiment joint l'acte à la parole, ils ont mis le feu, euh, chez moi, chez, chez, la, chez euh, la, euh, la, maison familiale, chez mon père et chez ma mère. Donc,